mbokk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh yéen ñi nga xamante ni yéen a bokk ak ñun jotaayu asalaf ma al Qur'an ñu koy amee ci kër gi di la maison du Coran ci njiital Cheikh Abdel Aziz kamara baraka rahmaanu fihi wa fi dawi tey nag ñu wéy ba léegi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu daan dundé quran al karim ak sahaaba yi salafa saaliha yi nañ ko daan dundee comme jotaay bi asalafu ma al Qur'an la magni ak al-quran al karim sayyidatana Aisha radiyallahu anha ibnata abi bakr ya Aisha daf nuy nettali comme hadis bi nga xamante ne ibnu Majah moom ma ko nettali ca téeréem mu ne abta'tu abta'tu ala ahdi nabiyi sallallahu alayhi wa sallam nee na benn bés ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne wa kaana ba'da al-isha nee na benn bés dañoo julli ji géewe ba pare ma da war a dellu si ci kër gi ma daldi yéex ma daldi tardé yontu yàlla Muhammad ali sallatu wa don ko set ci kër gi gisu ko doon ko xaar waye ba nga xamanteni ay aisha ñewna ñëw yàlla Muhammad ali sallatu wa ne ko ayna kunti ya aisha fan nga nekkon yow yaay aisha yaay aisha moom moy netali mu ne ko ya rasul allah yow yontu yàlla Muhammad ali sallatu wa لقد سمعت اليوم رجلا من اصحابك تي دغنا كين سي naa kenn ميجنج القرآن الكريم لم أسمع مثل صوته وقراءته من أحد نين مسما دق القرآن جويرني القرآن القرآن جنيه خنونه واي بات بنيه خنونه تي أي صحابة مسمكو دق تي أي صحابة ينتي على محمد دادي جوك نين ينتي على محمد دادي جوك فقام ينتي على محمد بموجوجة مونة من عندم لا إله إلا الله مداري عندك يا عائشة نين يوم يداري دم تجاك جا bañu démé né ñent yàlla Muhammad fastamaa ilay ñent yàlla Muhammad diko déglu diko déglu diko déglu waye mu daali di tourné mu ne Aïcha mu ne haada Salim mawla abi hudhayfa mu tourné mu ne ma hadha salim mawla abi hudhayfa kii de Salim mawla abi Hudayfa la mu ne alhamdulillahi alladi jaala fi ummati mithla haada maa ngi sant yàlla mi nga xamante ne moo def ci sama xeet ku mel nii allahu akbar annabi yahmadu ينتي محمد لي سنتي الله فيما في ماذا تي لن لي سنتي الله في قارئ القرآن نعمة قارئ القرآن خيولو كمن القرآن ديكو جانغ باتم نيخ تلول ينتي محمد عليه الصلاة والسلام مدادي سنتي الله ميغا خمانتني موكو مي kenn ci xeetam mel ni Salim Mawla Abi Xudayfa te teewul ca xurubu ridda daañ ca ñëw ca la ñu rey woon ki nga xam ne mooy Salim Mawla Abi Xudayfa ca la ñu rey woon Xudayfa ca la ñu rey woon ki nga xam ne moom mooy Zayd Zayd ibn Xataab ñoo ñëpp macha allah lu toll ak sabuuna qaari an foofee lañ leen rey woon comme niñ rey woon Sariyatul Qurra yaani sabuuna qaari an ca Bi'ru Maun yooyu yëpp ay qisas la yoo xamante dañ ci ñëw waaye pour wan leen alquran ni mu yaatoo woon ci jamono sahaaba yi ak ñoom nañ ko daan dundee ak nañ ko daan dundee ak yonte yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam mu daal wàcc ba ci nga xamantene ñom ñoy as-salaf azari al imam al kisai mu bokku ci aimatul qiraa ñun xam nañu ko comme ni nga xamante ne noonu al xatibul baghdadi netale ci terem mu ne benn bés imam al kisai dafa daal tëdd mu daal gént yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ra an nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi manami dafa gént gis yonent yàlla muhammad alayhi salatu wa salam yonent yàlla muhammad ko ko al-kisai ndax yow yaay imam al kisai mu ne ko naam ya rasul allah نعم ينتي على محمد من الإمام الكسائي منك اقرأ جنجل القرآن الكريم مدق منك يا رسول الله وما أقرأ فن لا يجنج بنصار قبل ما جنجكو ينتي على محمد اقرأ والصافات صفا جنجل سورة الصافات إمام الكسائي دي جنج والصافات صفا فزاجرات زجرة مي جنج دي جنج دي جنج نيني yonti yàlla Muhammad daa di téye ci sama mbagg nee na fa dara bani bi kati fii mu daa di may ne nii nee na ma daa di taxaw mu ne mu ne ma la ubaahiyanna bika almalaikatu gada ëllëg dinaa téye ci sa loxo di la ndamoo te di la bakkoo ci kanamu malaayika yi ëllëg annabi yatabaaha bi man kan la yonti yàlla Muhammad di ndamoo ëllëg di ko bakkoo qaari'ul Qur'an الذي يقرأ القرآن الذي يتلو القرآن الذي يعمل بهذا الكتاب لولا درجة بوب لكم إمام الكسائي مويلا مبكي قراءة القرآن وإقراء القرآن جنغ القرآن ديكو جنغله مومي إمام الكسائي مجيس ينتي على محمد تجنت ينتي على محمد نيكو ألق دينا على باكو تي كانوا نيغا خمنا نيوم نيوم ملائكي الأعمش سليمان الأعمس ها خمنا نكو تي الأسانيد تي القرآن الكريم دفا وخوني ومما رفعني الله به القران لي تخ لما يالا ييكتي موي القران الكريم مبوكي احمد بن حنبل عبد الله بن احمد بن حنبل مومونوي نيتالي من سالت ابي او سمعت ابي دغنا سا دغنا سا باي موي احمد بن حنبل رحمه الله موي رايت رب العزه عز وجل في المنام جنتنا جي سا بروم جنتي جي يالا لو مانا نيك لا نينا جنتنا جي يالا بور بي سبحانه وتعالى تي اين لو نينا مانيكو ما أفضل ما تقرب به المتقربون إليك لن موغن تي خيتو جامو يالا بو خمانتني نيت ساكو نالاكو جيغي يو صابرم يالا نيكو كلامي يا احمد تي سماك واخ القران الكريم القران الكريم احمد بن حنبل نيكو بالفهم ام بغير الفهم نخمكو ولا نياكو خم يو يالا يالا نيكو بفهم ام بغير الفهم xam ko ak ñàkk koo xam yëpp ku ngoy ci yoonu alquran al karim yegg ci yàlla buur bi subhaanahu wa taala di jàng alquran di jàngale alquran di jëfee rawatina jëfee parce que alquran ay digle la ak ay tere foofee nag la ñu baree bari gën a daanoo mooy jëfe yi maanaam digle yi ñu jëfe ko duñ ko def tere yi ñu bàyyi ko duñ ko def te jëfe alquran foofee la gën a basé wu mooy jëfe gi manam jëfi alquran ci digle yi ak tere yi la gëna nek ñu baree bari ci digle yi ak tere yi la ñuy daanu yàlla nu yàlla bur bi subhanahu wa taala yombalal ñu mëna a jëfi alquran ndax ki jëfi alquran koko bokku ci ñooñ alquran alkarim ما كان من صواب فمن الرحمن وما كان من خطأ فمن نقصان صلى الإله على النبي وآله ما لبى ملب أو تهلل مخرم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته L'eau multimédia moi l'un des émission assalafou Qur'an. Nous sommes l'eau multimédia. L'eau multimédia. 27 avenue Émile Badiane angle Paul Oldakar. Dakar. L'eau multimédia spécialiste de informatique bureautique divers matériels réseau ak accessoires, accessoires ci ay yu